jeye ji am ci Beirut di capitalu Liban ci dem ya mok ñent fan ci weeru ut jaaxal aduna wërngal kep ñu bari ñak ci seen bakan am ñu ci jëlé ay gañu gañu yu metti boole kok yàqule gu bari picc ngi ci kaw waye xel ma ngi ci suuf waral doom Liban yi fété ci Sénégal di ko naqarlu té di wax li ñu yaakar ni moko waral affaire bi kayna eh, bu mu daf choqué quoi bo paré كان خالاتو كوكو اي فريمون ميتي نا سونو خول نيون ييب باسكو لوي دال لو ام لو نقاري لو دال دومو ادم داف نيقار نيون ييب مي بو واو غاي غاي ديني واخ امنا غاي امنا دين تي داف اتونتا خاو مارا لا خاو مان ياتا مور خاو مان ياتا بليس الافير بي برينا مي افير بي ميتي نا فريمون ميتي نا فو فير وارنا نيو يوك كارانغي سي باتو يي باسكو نا ندخ غيس metti na pour ñep même même ku dul libanais metti na ci mom parce que depuis ce matin ñep a ngi ci wax ñi nga defe ne euh, attentat la mais do attentat Naron na dal rek c'est des c'est des explosions qui a eu ça a bousillé presque tout le pays malheureusement kenn mënu ci dara li ci des nag yalla yor lu yalla def mom dana bax inshallah Ah je crois pas. crois ma gëm dal mooy problème mu sécurité la jàpp ma ni terroriste la it. problème de terroriste. waaye nañu gëstu euh, euh, am ci ñoom sax ñuy tuumaal seen dëkkandoo bii di Israël. suñu dëkkandoo yi nekk foofu seen affaire dara leerul mais lu nekk day feeñ. incha dina am lu leer fii ak ñetti fan am lu leer. sama dëkkandoo yi seen affaire dara leerul. li nu jàppagum mooy ndell gi moo ngi jóge ci cargaison bu defoon nitrate d'ammonium di ab tooke. libanais bi di wuyoo Assad Dakhla di wax ni ñak na ci mbokk yu bari metti na trop trop trop trop sama mbokk yu naari yu bari yu bari yu bari dama xel lu ma xam dafa gaañu ci ci événement bobu et on m'a envoyé des des messages j'ai des parents qui sont décédés et bon je je sais pas qu'est-ce que il faut faire là. Ousseyn Ati mom amu ci mbokk. waaye terewul muy xamle ni naqar bi ñoom ñëpp la daal. non heureusement non non non ils ma famille est, est dans les villages pas en ville même mais mais de toute façon ñun ñëpp ay mbokk la ñu metti na pour ñëpp mais kenn mënu ci dara loolu yàlla bëgg mooy am. bi la jëye dal Liban mën a naxsaayal seen koom-koom gi nga xam ni nërmeelu na ba nuppi te doomu Liban yi ñu taseel jàpp ni loxo yi ña réew ma génn ca. il faut vraiment aider le Liban. Liban daal li ma ci xam moy rew muy jara jàppale la Yakuna na lool soxla nañu nimbal torop. metti na pour tout le Liban surtout peuple bi amatuñu lu ñuy lekk lu ñuy naan pour ñoom franchement il y a la pauvreté comme il faut autant de guerres amoon nañu guerre sept ans ils ont souffert mais cette fois-ci beaucoup plus ak euh, gouvernement de Fuldara amuñu ndox amuñu courant amuñu dara y a la pauvreté comme il faut ak mi ngi sans compter coronavirus il faut que le gouvernement mu juk mu seet lu muy def parce que ñom xaliss bi anamu ñu ngi bàyyi peuple bi amatu lu nuy lek lu nuy naan c'est pas normal. problème bi yok na déjà une euh, affaire économie yàqu li top na ci. c'est-à-dire comme on dit ne vient jamais mais yàlla ngi fi lu ne dana baax incha allah. téeméeri doomu aadama ñàkk ci seen bakkan junni am ci ay gaañu gaañu teg ci koomam réew ma gën a suux tax ñenn ci doomu liban yi nekk Sénégal di ñaan nguur ga mu gën a góorgóorlu waaye tamit ñuy woo communauté internationale mu jàppale leen.